kon euh, bu fekkee yaa ngi ñu dégg monsieur le ministre ñu ngi lay ziar di la gërëm. bonjour ñu ngi lay euh, ñu ngi leen di ziar. Mm-hmm. di vraiment donc euh, am beaucoup de peine et de colère mm-hmm. et de tristesse. Mm-hmm. par rapport ak li xew dal suñu sœur suñu xarit Maïma Ndour Faye muy une figure et une voix assumée de la liberté d'expression et de la démocratie. Mm mooy jigéen boo xamante ne mën naa wax ne jàmbaar la jàmbaar ju wér boo xamante ne li mu tabax ci réew mi jëmale ko ci liberté d'expression ak presse mm-hmm. yaakaar naa kenn du ko lam lame tey laal ko mooy laal Sénégal dans ce qu'il a de plus mm-hmm. mooy euh, démocratie ak liberté bon dëgg maa ngi koy soutenir di soutenir euh, toute la presse parce que laal may la presse sénégalaise mhm. mooy laal la démocratie du Sénégal mhm. mais mooy laal aussi les fondamentaux de la République mhm. bon na tey euh, tous les Sénégalais doivent se lever comme un seul homme pour non seulement dénoncer ça mais vraiment donc euh, se positionner pour défendre notre démocratie et notre république parce que quand même lii raam si ñàkk bi la jël mm, mm, jëm mm, on ne peut pas continuer à subir la terreur nous ne pouvons pas continuer effectivement à voir des gens euh, faire des actes de terrorisme pour faire peur pour que donc les véritables militants de la liberté à la démocratie reculent pour que dëkk bi dugg si euh, situation boo xamante ne kenn du xam situation lan la en tout cas Euh, tous les démocrates et les sénégalais ñi xamante ne dañoo gëm dëkk bi tey mhm. ils se sont réveillés choqués mhm. ils se sont mhm. réveillés en colère ils se sont réveillés vraiment donc meurtris euh, parce que li xew dafa laal effectivement loo xamante ne kenn waru laal sim réew c'est vraiment ignoble maa ngi donc euh, Euh, euh, vraiment seet mayum bu baax. d'accord mais aussi di la presse. Mhm. di encourager surtout la presse les journalistes. Mhm. maa ngi leen di wax il faut rester debout. parce que quand euh, tout tremble dans ce pays. Mm-hmm. c'est vous qui devez effectivement euh, vous dresser contre effectivement toutes les forces du mal qui veulent faire peur. Mhm. pour que euh, la République tombe, pour que le Sénégal, effectivement, donc, euh, soit un pays euh, vraiment, donc, qui soit dans le désordre. Je n'ai même pas les mots pour expliquer la peine et la colère que j'ai. waaw ñu ngi lay gërëm ah ñu ngi lay gërëm monsieur le ministre mu nekk kon Abdoulaye Diouf Sarr. mu nekk ku ñu dootul présenté ci nguur gi ndax occupé na fonction yu bëree bëri. Euh, ba fi ñu toll nii sax mooy directeur administratif et financier de la société africaine directeur directeur général directeur général FONSIS. directeur général bu FONSIS donc euh, monsieur le ministre kontaan nañu ci woote bi ndax xam naa ne may mën a seen diggante yéen ñaar moom euh, buñ ko doon lim sori na lool lool ba tax na sentir nañ sax ci sa voix li nga xamante ni moom moo di émotion bi mais di la di la gërëm ci kàddu yu rafet yi nga yëkkati jërëjëf